asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah lundi 24 juin 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey mu mel ni ki sunu làmb la tey la tribune leewtoo point net jàppal bu dee la tribune la wala muy sunu lamb foo ca dem rek di nga fa fekk mbirum lamb sunu làmb nag fa lañ koy doore mu mel ni ki nag kii nga xam ne nii day moo di sunu lamb tey mu njëkk Sa Thiès la fa xëy wane muy taxaw di fecc ak moo xam ne mu nga taxaw di fecc mu mel ni ki kon daal jàppal seen combat ñaar daa mel ni est-ce que mënati naa ñàkk Sa nag moo xëy di waxtaan ak kii nga xam ne nii moom moo di kii nga xam ne moo di Abdoulaye dimbali bu sunu làmb la ko Sa Thiès xamal nag ci digganteem ak rëg-rëg nee na bu ñu làmb boolee day dañuy muy bëre Sa Thiès daal moo wax loolu mu mel ni nag Sa Thiès fi mu nekk nii day tëjalul kenn ay portam loolu daal mooy ay waxam nee na nag i tamit ragalut kenn koo xam ne nii day yaa ngi ci làmb ji di bëre nee na daal amul kenn koo xam ne ni ragal naa ko wala kenn koo xam ne dama naan bëriwuma ak yow mu mel ni ki daal fi mu nekk nii kon Sa Thiès ni ñu ko yëgle kay waxe daal daa mel ni day ubbil na buntu ma nag rëg-rëg de loolu mooy wax ji nga xam ne nii moom la ñu sunu làmb xëy tey yëgal ñu ko leneen loo xam ne Sa Thiès ñëw na ci nee na tamit pare na de si Senior ngir bëre ak moom wala muy Garga Mbossé mu mel ni kii daal Sa Thiès moom xëy na wax nee na daal léegi moom li leer ba leer daal pare na ngir bëre ñëpp muy rëg Sa Thiès nga xam ne mooy Yékini Senior ak garga mboos ak keneen ku mu ci mën a doon daal pare na am na foo xam ne nag moom confiance la fa am maanaam am xelam moo fa dal su làmb nu ko xëy wax mooy ci combat bi dox ci diggante magam ji di Lac de Guiers 2 ak Boy Niang mi nga xam ne moo ko daanoon daaw saa Thiès daal mu mel ni ki nag xelam dal na foofa bu baax a baax a baax maanaam daal la Lac de Guiers 2 liggéey moom doy na ko pour mu daan ki nga xam ne moo di Boy Niang kenn koo xam ne nii moom wala ki nga xam ne moom la Sa na ne tëjul ko ay buntam muy Reug-Reug daa mel ni moom démb day ubbi woon na bunti caaroy ak la ko wër wala mbedd ya bokk wala ñu ubbil ko ko ndax nag sunu làmb day xamal nañu ne Reug-Reug daal démb moom caravane la xëyee ba boo gisee daal fu nekk ci caaroy aw na fa ak fa ay supporteram nekk ñu gis nag yëgle kaay na njëy ki nga xa ki nga xam ne nii day moo di Reug-Reug te ëllëg xaar mu nekk roi des arènes day daa mel ni nag démb génn na ànd ak ay soppeem sargal ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoom di waa caaro yi waaye gis nañ tamit diggante digganteem baay ma Mandione ñoom ñaar ñu ngal ànd maanaam daal kottante di saafonte mu mel ni ki tamit diggante Reug Reug bàyyi ma njoon fi mu nekk nii moom ah loo ci mën a dégg day neex na ba yegg ci lool wala mu sedd ba yeggu ci guy yëglikaay bi moo xëy tey wan ñu foto wow bi tribune tamit noonu la ñu ko xëyee wax ne ñu day Reug Reug moom jàppal dem daal caawareeg li ko wër moom wër na ko bu baax a baax a baax maanaam daal fu nekk. teg na fa tànkam waaye kii nga xam ne nii nag moo di Lac de Guiers numéro 2 ak Boy Niang Mouhamed Ali may mën a sawul Lac de Guiers 2 moo xëy tey di wax nee na Boy Niang xamal li ngay def bu baax baax a baax ba itam bàyyil xel ne day kii di Lac de Guiers numéro 2 nekkul koo xam ne nii day moom mooy doon foo xam ne mooy doon bunt bi lay ubbi bunt bi ngay ubbi bokk ngir dem ca ñu ñu tudde ay VIP mu ne ko bu dee foofu nga ko yaakaare day tàyyi ko ndax foofu moom du mën a sotti ndax Lac de Guiers nekku fi ngir loolu Mouhamed Ali daal moo xëy tey di wax lool ci yëglikaay bii nga xam ne nii moom moo di sunu lamb leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii moom moo di ca fi nga xam ne moo di la tribune la tribune nag lam ñu xëy di wax daal mooy combat Feugeula ak kii nga xam ne moo di double moteur Feugeula moom la xam xamle daal moom na ne day lu mënta xew double moteur bi su moom defloowu ko lenn ndax nag dina ko wan ne ko bu ñu ca yeggee duma sa morom dina ko wan loo xam ne day dina xam ne day ba si góor dong moo koy bay waaye mbokkam ma di Aliou Diop doom daa mel ni day lamb ja mu seqoon samedi ak kii nga xam ne moo di njaaxum moom Aliou Diop lam saar daal daa mel ni njaaxum moom wan na ko ne ba si góor a koy bay ndax nag sunu lamb nu ko wax ca xeex ba ba ca bëre ba booy xoolee daal njaaxum wan na ko lu méttee métti ba pare nag daan ko jël bu réeréeré yëglikaay bi xam ne moo di sunu lamb moom itam moo xëy ñëw di ñu wax lool waaye te bés booba nga xam ne saam ci la tëggoon làmb jooju itam présenté na fa beneen grand combat boo xam ne day war na koo tëgg ci weer yi nu jëm muy dox ci diggante Coly Faye numéro 2 bu Caaroy ak kii nga xam ne moo di Nandi Fall bu Grand Yoff ñoom ñaari mbëre nag ñu ngay diggante di dànkonte waanaam ku ci nekk daal la nga nar yaa ngi koy wax ngir la siis Coly wax na kii di Nandi Fall itam wax na mu mel ni ki foofa moom loo ci mënti dégg wax xat def na ko leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi nga xam ne ni moo di suñu làmb da cee ñëw muy histoire boo xam ne day boo xam ne kenn mësu ko nettali kii di maam njambaan moo ko nettali ci Mor Fadam muy lu daw a daw a daw yaram loo xam ne day maanaam ku ko liir daal ah yaakaar naa danga ca gis lu bees wala sa xol dana ca tooy yëglikaay bi moo xëy dinu ko wax waaye leneen loo xam ne gis nañ ko Sidi Jaxate Thiès tamit dafa woote woon samedi ji làmb ju neexan ne diggante am di nogay ak ki nga xam ne mooy caatu Samba Jag waaye am di nogay day yëglikaay baa tey dafa bet kii kii nga xam ne moo di caatu Samba Diaw daan ko fa nga xam ne moo doon ca stade Maniang Soumaré ba ca Thiès yëglikaay bi di su lamb ba tey moo xëy di ñu xamal loolu leneen loo xam ne moom ca Leewtoo point net fa la ñu koy fekki mu mel ni kii nag kii nga xam ne nii wala ñii nga xam ne nii ñoo di équipe bi dugg regroupement ma am na ñoo xam ne bu ñu duggee am na xam ne ba tey duggaguñu ngir di préparer drapeau chef de l'État ba bu dee équipe bu Fatick la moom yëglikaay bi di Leewtoo point net mu ngi ñuy xamal ne ñoom ñu ngay regroupé fii nga xam ne moo di ca Palmarin waa Kaolack moom ba tey daa mel ni daal dugg defaguñu ko bu fekkee ñoom nag duggaguñu ña nga xam ne ñoom ñoo yore mbir yooyu ca CNC ba muy kii nga xam ne moo di Cerno Ka ak Njàmme mu mel ni kii nag ñoom itam demoon nañu ci mbuur ngir lan xooli lii nga xam ne moo di dalukaayu délégation yi war a ñëw ci drapeau chef de l'état bi Leewtoo point net moo nu koy xëy dina ko xamal waaye loo ci mën a dégg daal Taala Njaay jàppal weekend bi day neexoon na daa mel ni waaye si di Jaxate toj na Thiès Samba itam sam production jamono jooju yëngal na Essa Diop Iba Mar Diop ba mu yëngatal lool lool mu mel ni ki làmb ji jax na waaye dimanche ja nag la dàqati mooy kii nga xam ne moo di Diao Baldé Keita ak Crépin Diatta ñoo fa jaar ca Coupe d'Afrique ba dugaleel Sénégal ñaari bii ya nga xam ne moom la gañee matsam ba nga xam ne moom la doon suyee waaye loolu su mën a dégg kon tey moom dañuy ñaanal équipe nationale yal na fi indi Coupe d'Afrique bi loolu daal la ñuy ñaan xanaa am nañ ci droit ndax nag réew mii nga xam ne moom la président Macky Sall dëkk fi la ñu dëkk suñuy maam ak sunu lépp fi lañ dëkk kon ay sénégalais pur lañu xanaa nag olof a ko wax kone ne sañ ngaa ràcc jëmale sa kanam ngir fexe mu dëll loolu mënta nekkam Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm di sant ba waxee ngeen ànd àndaloon ci si de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. fay naa la Ndeye Coumba Fall ah. <laughs> naar bu xees bi comme ni ñu koy waxee la Mauritanienne maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la nuyu di la ziar di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu ma nekk si àddina bi rek di leen wax ne namoon nañ leen waaye ñun itam nit ñu namee daal nu ko raw nañ leen namee ñoom. loolu am na solo Babacar ñu ñëw ak euh, yéen si sunu laam sunu laam te mi ngi ubbee ak waxtaan bu yaatu bu mu sekk ak euh, Sa Thiès daal moom bañul rërëg su leen laamu boole daal moom pare na pour takk jaaji daal ba moom. waaw loolu day bu ko waxee moom defe naa xel war na koo mën a nangu parce que nag euh, actuellement rëg-rëg fi mu nekk nii yaakaar naa digganteem ak Sa Thiès ñu ngi koy réclamer te boo laajee cent boo laajee cent personnes téeméeri nit maanaam cent personnes jàppal ne. la ëpp ca pourcentage ba day mel ni kon dañ naan combat lu war a mën a nekk la moom itam dafa mel ni kon dégg na ko noonu ba tax mu ne moom pare na ngir bëri ak moom bu fekkente ne làmb boole na leen waaw dama naan nag xëy euh, mu nekk nii pour man ñoom ñaar ci sama gis-gisu bopp laa wax de pour man làmb boole na leen war nañoo mën a bëri actuellement waaw mais lu mu ci mën a doon nag euh, euh, lépp waxtaan lay doon ba déggoo rek parce que actuellement rëg-rëg moom fi mu nekk nii loo ci mënti wax mooy parcours bi muy def fi mu nekk nii vraiment fi mu nekk nii bañ ko ci làmb dina xaw a jafe am na ñoo xam ne nag mu bëri ak ñoom ñooñu lay neex waaw day am si làmb am na ko mbër yoo xam ne euh, boo bëggee bëri ak ñoom ci ñoom rek lay dépendre combat ba bu la neex dina am su la neexee du am mais am na ñoo xam ne nag làmb day ñëw ba ñoom dootuñu am raccourci bu ñu mën a jaar ngir bañ la parce que làmb jam moo leen di dajale fu ñu aw dañ leen koy wax promoteur dañ koy dox moo lay wan ne kon làmb jooju day mën a nekk te diggante Reug Reug Sa Thiès moom su taxawoon di nga gis combat bu neex a neex a neex a neex man maa la wax lii. vraiment loolu am na solo si Reug Reug boobu sa la ñuy des ba tey ndax après victoire am euh, weekend bi passé moom ak Gris sam ni delluwaat na si ay mbokkam Caaroy def foofu benn caravane caravane bu rëy waaye Caaroy ñëpp génn xam nga kontaan feet ak moom victoire bi. waaw loolu moom vraiment lu rafet rafet la parce que tamit nit ki euh, amul loo lu dul fi nga dëkk te waykat bu mag ba Youssou Ndour ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér doon na wax ne li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën cee ñaaw loolu nag xëy na moom yaakaar naa loolu xëy na moo ko dalul moo tax bi mu amee ndam mu delluwaat ci ay mbokkam xëy dugg ci koñ yi xëy na xëy na kër gu ne mënoo fa dem mais l'essentiel que li nga man mooy mbedd yi nga jaar ci ak sa ay nit remercier leen sàkkuwaat ci ñoom ñaan parce que euh, loo ci mënti gis rek euh, li lay dooleel di la jàppale di la pouse pour ngay dem ci kanam defe naa loolu waroo ko ci caaxaane te loolu li ci njëkk mooy sa ay mbokk mooy sa ay dëkkandoo ndax dëkkandoo moom bu ngeen bokkul ci dara tamit mais dëkk nga ngeen dëkk rek da leen di tax ngeen nekk ay ndax loo xew ci yow dëkkandoo moo fay njëkk kon defe naa bu defee loolu tamit du ñu mën a def lu dul rafetlu ko yoo xam loolu defe naa ku nekk taxawaay boobu rek moom nga war a amee parce que booy jóg di dem ñoom ngay représenté seen drapeau ngay gàddu boo ñëwee am ndam itam bokk ko ak ñoom comme boo amee safaan ñoom dañuy ñëw di la defal loolu rek mooy lu rafetlu pour man daal Babacar journal bi tamit ñëwaat na ci combat bi nga xam ni moom mooy am euh, le quinze juillet bi diggante euh, Boy Niang 2 ak Lac de Guiers Lac de euh, Mohamed Ali manager Lac de Guiers mi ngi araftu ñi nga xam ne na jox favori Boy ñaar nee nag Boy Lac de Boy Lac de Guiers bo nekkul poids bu facile maanaam du nekkul lu yomb. voilà moo koy ubbi comme ni ko nit ñi di waxee ñoom pour ñoom day nekk lu nooy quoi Boy ñaar dañoo rek jàll dem. waaw loolu moom maanaam pour man sax warul mën a demee noonu parce que bu demee noonu pour man làmb ji du neex de déedéet euh, parce que li tax tamit Lac de moom dama naan la bokk na ci mbër yi gën a jafee daan tey ci làmb Sénégal waaw mbër mu jafee bëreel la mbër mu jafee daan la parce li ko waral mooy dama naan moom force tranquille laa koy tuddee macha allah danay am doole si làmb te itam lu mu xamul ci biir bëre du ko def kon kuñ ne daan ko ci yow day yomb ci yow boo ko ñàkkee dañ la koy xañ kon Mouhamed Ali xay na côté boobu lay waxee waaye itam moom Mouhamed Ali na sédd ne ki muy bëreel itam xale la boo xam ne ay mag a ko yor te dafa mën a bëre loolu muy Boy Niang yaa ngi dégg mën naa bëree loolu macha allah mën na xeex te xale la boo xam tamit fi mu nekk nii li mu foofu mu dugg noonu dafa bëgg a des ci biir li koy may mu des fa nag mooy mu daan Lac de Guiers ndax tamit loolu mën na koo réussir loolu mooy question bi waaye yaakaar naa combat boobu moom muy si côté Boy Niang di si côté Lac de Guiers lu yomb munu faa am mais benn affaire daal xam naa ko ci képp ku mu ci mën a doon si ñoom ñaar am na loo xam ne soo ko bëree di nga teel a daanu maanaam bu booy Niang ñëwee ne dama ko fiy jëlee kut ko kut te tegu ko ci lu leer mën na am lu ko bett Lac de noonu la mel Lac tamit bu ne day kuri sa booy bi ndax dafa maa yàpp su ko rogee itam mën naa nekk lu metti ci moom kon daal li ma leen di wax mooy ku ci ne na jox sa morom cër bi nga xam ne moom la am ci làmb parce que pour man adversaire balaa ngay xam tolluwaayam ak dëgëreem li mu mënee ak li mu moom danga koy jox ba pare boo koy affronter nga xam foo koy jaar pour mën ko aborder pour mën ko daan mu yomb ci yow. dëgg la Babacar Babacar Cees Caay ah waa Cees dafa laa dekkoon samedi wax dëgg yàlla may nuyu profité di ci nuyu ku mel ni ki nga xam ne mooy Sidi Jaxate di promoteur bi tëggoon làmb ja ñoom Baye Sow ak ñoom Pape Mbaye ñoom ñëpp ngi Cees di nit yoo xam ne ñoom Mara depuis Tiwaawoon dañuy suivre Leewtoo bu baax a baax kere tamit wan nañ ñu ko xam nga te loolu rafet la làmb ju neex amoon fa ki nga xam ne nii moo dee am dina koy ak caatu Samba Jaw am dina koy daan ko jël bu rëy parce que ñoom ñaar euh, ku mel ni Safi Dieng xamal na ma ne 1-1 lañ def parce que kee da ko daanoon ci combat spécial Euh, sa caatu Samba Diaw dafa daanoon am di nogoy yàlla dogal nag ñu bëri waat ramas kera grand combat Sidi Jaxate tëgg ko am dina koy daan mel ni ki Thiès tamit si di Jaxate ñu ngi koy félicité du ko encouragé ndax mu ngi dundal làmb foofu ndax soo fa ñëwee samedi ndey kumba da ngi stade Maniang Soumaré tribune yi dafa fees li wër terrain bi yëpp fees yaa ngi dégg podium yeeg fépp fu nit mën a taxaw daal war nga mën fa toog yaa nga fa ngir lan ngeen di seetaan làmb loolu nag li muy wane mooy que ni làmb suñu cosaan la Sénégal lañ koy defee ñoo ko moom kon daal di ci profité di nuyu wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci eh, fi nga xam ne mooy Kajoor parce que bu ñu nee Kajoor mooy région de Thiès ak li ko wër di wax ne que samedi daal làmb ju neex amoon na fa. samedi lamb ji euh, bu neex amoon na Thiès mais Dakar tamit amoon na lamb bu neex Sam production tëggoon ko diggante Ñaaxum ak Alioune Seye numéro euh, Alioune Diop numéro 2. waaw loolu moo amoon sam samedi tamit mu mel ni kon samedi bi Dakar tëgg na Thiès tëgg na Sam tamit di xale di yëngatu ci làmb ñu koy félicité moom itam vraiment ci courage am tëggoon na ñaari xale yoo xam ne ñoom boo xoolee sax danga nga naan ku ci ne fi nga war a nekk tey ci làmb yegg si fa carrière nag des fois day doxee noonu muy Alioune Diop di Njaaxum ndax Njaaxum su ma la génération ñoom guy gi la ndax bëri naa guy gi génération yooyu la xëy nag làmb mooy des fois xam du des fois daal carrière du gaaw Aline Diop tamit nekkoon xale boo xam ne amoon naa élan mais gis nañ ne temps yi tamit doxlewul sam boole leen nag yàlla def nag Aline Diop daan ki am mooy njaaxum daan loolu nag xel mën na koo nangu ndax bu dee expérience bi moo ko ëppale moo jiitu ci làmb kon dañuy di wax ne xale tamit ñi di neexoon na trop macha allah. Babacar suñu jógee si avec frappe bi nu dem si simple bi Mame Diarra Thiam moo woote woon démb euh, si Adrien Senghor euh, drapeau Pape Thialis Faye euh, drapeau patron l'autoproduction final ba mi ngi doxoon si diggante euh, Ibou Senghor 2 ak Adama Diouf finalement Ibou Senghor moo ko jël Babacar waaw ndey Kumba del del kii xaw ma ne sa sa baat bi ngay titibe nii te yow yaa ngi woon ca làmb ja kon Adama Diouf mook Ibou Senghor ñoom ñoo final Ibou Senghor moo gagné waaw loolu tamit di féliciter Ibou Senghor di encourager Adama Adama tamit kon xam naa dafay doog a ñëwaat kon bu ñëwee dem ba final loolu defe naa du Adama Mamindis la ok Adama Diouf Mami kon Adama ñu koy nuyu moom tamit ci final boobu nga xam ne dem na ci démb di nuyu xaritam ku mel ni Ablaye Diop borom sum production di féliciter Ibou Senghor bi nga xam tamit moom vraiment mu ngi wane boppam ci lutte simple bi maam jaara tamit ñu koy encourager di ko wax ne ko foofu mu teg loxoom foofu la metti na mais na muñ parce que lu metti si doomu aadama bi lay dal jigéen la mais mu ngi eh, ñàkkante di teg ay miis xam nga jigéen bu jël 1 million teg ko Adrien Senghor tombeek Sénégal sax di football démb yaakaar naa ko def kon nag yàlla na ko yàlla dimbali daal ba li nga xam moom lay séntu ci di ko ci mébét yàlla na ko yàlla def mu gis lu mel noonu quoi ñu ngi koy féliciter bu baax a baax moom maam jaar di ko encourager. waaw Babacar match boobu sax a taxoon nu def ko làmb ji mi ngi ko ko li ngay wax tegoon mise 1 million ay góor mais teguñu 1 euh, yi ñëw nañu wis nañ ko ki ko wisiwul daal mooy parrain bi muy Pape Thialis Faye te loo xam tamit da ko lu lu bëreet bëri ki nga xam ne mooy promotrice bi. waaw loolu moom yaakaar naa ne ki nga tuddee bés moom yëg ko ba delloo ko drapeau defe naa yaakaar naa ne bu bu ñëwul itam xëy na war na ah, war na am ay raison yu tax mu xa ñu mën a xam ne ñëwut parce que teewe lépp yàlla rek moo ko mën nit ki du maanaam fi ñu lay xaar fépp xëy na doo fa mën a teew waaye xëy na yaakaar naa comme ñoom ñaar xamante nañu te jël na drapeau du péego ko xalaat naa ne loolu ca Thialis loolu nga xam ne arrivé na démb te du lu nga xam ne lu gënal kenn la ñu ngi ñu wax rek ki nga xam ne mooy Thialis mu mu mu jéem a waxtaan ak maam Diarra parce que tamit euh, nit ki lay tudde bésam daal amu loolu loo ko fayee rek lu dul nga delloo ko li nga xam ne mooy njukkal parce que xaalis bi du mooy defar relation bi mais relation entre nit ak nit doom jëmmu doomu aadama moo ëpp doole lépp lu mën a doon ci kaw suuf kon defe naa nit ki la nga xam moom moo jël drapeau jox la ko njukkali la ko defe naa tamit même boo mënta ñëw tamit daal euh, parce que teq-teq yi bari na ci àddina bi mais nag waxtaan rek ba euh, ku ci ne xam lu la téye ak lu tax mënoo ñëw su ko defee te problème du am encore une fois di ci profité tamit di nuyu Pape Thielé Soy nga xam ne moom mooy tamit suñu directeur di suñu kilifa ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Leewtoo production. nu jeexee ak drapeau chef bi euh, parce que ay 5 jours juróomi fan ak moo pour nu mën a siffler coup bi ki si mel ni Ndiambé Diop directeur administratif ak Thierno premier vice président chargé de la lutte avec frappe ñu ngi woon bi ni xool ndax dalukaay yëpp yemb na waa lool moom c'est normal parce que comme ay délégation fay dem te raison bu ne am nga équipe buy dem sa cinq mbër ak ña nga xam ne ñooy délégation ca wàllum ñett ci staff bi voilà muy huit personnes par par raison ak Sénégal ni mu toll tey defe naa kon mbooloo fay daje yaa ngi kon nag loolu c'est très normal ñoom loolu ñu def muy Cernook ak Njàmme dem fi nga xam ne mooy Mbour pour xool dalukaay yi délégation yi ni ñuy dale ak seen i wax rek ni drapeau Sénégal bi daal yàlla nañ ko commencé ak bismillahi rahmaani rahim mu jeex ci alhamdulillahi rabbil alamin te tamit sama dëkk gañe ko muy Jurbel ndax man Jurbel laa dëkk nag Ndey Kumba Fall de est-ce que seen équipe boobu kenn da fa am na muy Boy Faye ah waaw Boy Faye mën naa tukkal àddina Boy Faye di mbër waada booy fay rek mooy suñu capitaine man maa ngi ci ginnaaw booy fay nag bii yoon nag. foo foo bàyyi général Malika. général Malika moom sama waay la waaye faruma moom parce que région de Fatick la bokk ba fa faruma ak de man fële laa far Cheikh Ndiaye yow it ñaa ko samay goro ngeen ak samay père ak ibra mbay mais maa nga Jurbel de. loolu am na solo Babacar si kàddu yooyu la ñuy tàggoo leen jox dig daje suba incha allah balaa boobu ñu ay Aïcha Faye naar bu ñuul bi xaw a yaram bi dafa xaw a jagadi moo tax chéri am euh, Amet Ña ni ngi koy nuyu di ko di ko di ko xool si nu mu def di nuyu aussi sama yaay euh, Mère Sow ak sama doom Mohamed di nuyu aussi Dari Gueye maa ngi koy nuyu lu bëri Astani de yaa ngi si biir ak Khadija Diallo depuis Parcelles Assainies am na solo Ndeye Koumba Fall tamit di profité waale di ñaanal rek suñu équipe nationale bi yàlla yóbbu ko final ah Coupe d'Afrique te mu indil ñu coupe bi fii ci réew mi. ak Mauritanie aussi tey lay tey lay joué tey Mauritanie Mali. ah sa dëkk ba Mauritanie ah Ndeye Coumba Fall bu leen fàtte kon Asi Diagne depuis Mauritanie maa ngi lay nuyu di la ziar moom tamit dañuy suivre Leewtoo bu baax a baax. Asi Diagne bu Modou Lo wala bu euh, génération wala bu sax KMB laay wax xarañ moo ñu boole ak nga xam ne mooy benn sama dem ñoo ñëpp di nuyu waa Mauritanie yoo xam di ah, ngi dégg di ñu nuyu ñi ñuy suivre ci Leewtoo TV ñu mën a nekk comme ni nga waxee Aïssa Faye sama di ko ñaanal yëpp di nuyu Talla Ndiaye mi ne ci bi nga xam moo ne ci montage bi mais di nuyu tamit taala borom sañse bi taala borom sañse bi Moussoulaye Couture fa jaar suñu tailleur bu mag boobu kenn du moom borom parcelle waaye di nuyu tamit jigéeni Leewtoo yëpp maa ah. ma ko jigéen ñëpp xanaa loolu mën naa ne Ndeye Coumba Fall yaay naa kon Aïda nuyul ma jigéen ñi nekk ci biir Leewtoo bi yëpp di nuyu nag tonton Diaw borom ADN kenn du moom Diaw Fara waaye Moussa Ba mu ngi ci kenn du yow maa lay bëggee borom Pikine fleur ci am sama mag maquilleuse boobu bëgg naa ko bu baax a baax rekk Adja Thiam loolu am